la ci jullit yi war a am rawat na ñu murid yi kon nag ñi ngi tàkku mbooleen ku ñëw ci garabaan bi na nga jóge ci baax bi jëndu sëriñ Ahmadou Mbacke Daaru Muxti ànd ko Baye Dame Mbaye su defee ñu leeral ñu nag li xam ne moom lañu ñu jëlee Sénégal di ko di waajalee thème bi nga xam ne moom la war a def te li ci gën a yéeme mooy lii mu jànkonte fii ak ku fi ñëw ba ba xam ko ba yëg ko fi mu ne tey bu fekkoon bis bi nga xam ne mooy màggal Touba nga xam ne moom ci la di dem bis boobee bu fekkoon bu ñu fa dajee dañuy fàttaliku coono yii boo ab tubaab du màggal si wala bu màggal see am jafe-jafe boobee ci ci réew waaye sëñ bi da ko wëlbati mu di cant xam ne Touba dana fa daje ba jóge fa te suñu xel du dem ci coono yi nga xam ne moom la dañoon fii moom lay wax ne sourire tout bi shukuri an tadakkuri maa qad bay niiwoo wa na al ashkari nee na maanaam dama soxlaal sama xol ak sama xel ak sama dama yittewoo sant wëlis nag di fàttaliku li xew sama diggal tubaab yi mosu koo fàttaliku mosu ca jéema jéema maanaam delluwaat ci anam goo xam ni tey jur ak noonoo diggam ak murit yi ndax fàttaloo murit yi kon loolu bi ma ñëwee man loolu laa njëkk a teewlu Sëriñ mooy kii ëpp yërmande moom te gën a baax ci am ñi gën a mën a jéggale xol bu sell boobee loola xawma sax xolub nit la am déet te itam tubaab yi moom seen yitte moo doon jël bakkanam loolu moom ku ne xam na ko fu ñu ko jéem a lore ba loolu sottiwut ñu yóbbu ko feneen jéem ko lor ci geneen anam waaye sëñ Tuubaa yàllaa ko aar ximal xafiidil maanici yuxni anil madaafici li kulli abdin xaasici noonu la ko waxee mooy sëñ Tuubaa suñu suñ sëñ Tuubaa moom suñu borom daa féeteeg moom daa féeteeg moom waaye du ko suturaal it da ko suturaal te nanguwul it ku ko lor li nga xam ne suñu borom ak suturaal mooy fii bi mu fi nekkee ca làmbar na wax na ni ba mu fa nekkee léeg bu bëggaa yi bu bëggaa yére yi mu yor bu ko bëggee yeesal fóotal ko moo ko daa fóotal boppam moo daa wàcc ca euh, dex ga di ko fóotal boppam ndax man gis naa sax mbindam moo xam ne dafa wax ne fii bi ma fi nekkee tumu tumuranke naa fi ci wàllu ak con tumuranke naa fi itam ci lu ñuy lekk ak lu ñuy xewloo ndax xewloo naa loo xam ni ñi gën a ñàkk luy xewloo ci réew ma duñ ko xewloo mukk col goog yi nag danaa dem ba tilim ci anam goo xam ne kii man la wax nañ ne nag bu ma saa wàcc ci dex gi ba di ko defaral boobu di ko suutural ca làmbar na dëkk bépp dañuy nelaw kenn du ko tal ñëppay nelaw ba mu def la muy def ca dex ga ba yéegaat ca kaw fa mu nekkoon ñëpp doo ko yeewu mbaa ñuy dox seeni soxla ca wala ñëw ci mën a a ñëw ci dex gi loolu mooy sutura suñu borom suñ borom moo ko suturaal boom moo ko aaral boom gis nañ maanaam saa yuñ ko naree lor rek suñu borom wàll si ahlu badrin kiram la tax ñu feeñu gaan yi loole ngir artu leen la benn bis lañ xëy ànd ak moom ca fa ñuy eh, eh, entraîné ndax dañ ko daa yóbbaale waaye bañ demee ba jub bërëb rek lañ siit mbooloom ay ay ay ay ay fas yoo xam ne ay jëmm ca war yu sol lu weex tàll seeni kaala dem ba ca suuf ñu raglu lool bakkan yu yor bakkan yu gudd ñoom ñëpp ñu tiit loolee am na wax nañ ne Lambaréné la euh, Libreville la sëñ Cheikh Mbeng moom boo xam naa bu ma bu ma juumee rek mu jubbanti ma so ndax moom waaw mi ngoog waaye loola bañ ko gisee dañ tiit ak yi ci xew yépp ñu indi ko fii waaye sëriñ bi am na lu am solo loo xam ne itam ci ay meloom ak i jikkoom mooy ku mënoon muñ la dara wax ne dama mos ñu tooñ ma muñ ñu fay ma fayul ma am na fii bi mu fi nekkee ci Mayomba kenn ci ñu dooy waar ñi nga xam ne koo xam ne sax ab sénégalais la xam ne lu ne teg na ko ko xam ngeen tur bi jërul ma ci jaar lu ne teg na ko ko ci ci ci ci ci ci ci ab safaan benn bi sëñ bi ci moom nee na sëñ Bachiroo ko nettali nee na dama ne ko waaw diw xanaa da nga xamul ne yowmal xiyaam dana ñëw lor jii nga may lor ak nii nga may sonale nee na daa ñëw ci man lu ne mu di ko def. ak wax ci ci bëgg maa woyofal ak bëgg maa tuutal kooku moom laa gis koo xam ne suñ Tuubaa da ko tuddee malaxoon malaxoon mooy ku ku yàlla rëbb waaw bis nee ne ñëw na dégg nga nee na lu ne mu ni ko rek ci wax ju doy waa xam nga Sëñ Moussa sax wax na ne yii saa mun naa ko tey nga suuxat dër bi hmm. yii saa mun naa ko waaw bi ko waxee ci des yoo xam ne kenn mënu ko nette waaye muñ googu mu amoon nag fi ne sëñ bi juróom nettali na boobu ne am na koo xam ne daa ñëw bi muy ma waajoo jële sax bi mu waxee bi muy bi muy bi muy jëf ay jëfam ndax dañ daa ñëw dana ñëw léeg-léeg maanaam euh, sikareetam si mu xëcc ko ba mu kii mu ñëw xër ko sëñ bi boole kooku wax yu doy waar nag sëñ bi nee na ne ko yow de moom moom li nga may def man de la ci suñ borom sant mooy muñ te dinaa ko def bu sobee la te sëñ bi mën naa jëflante moom xam nga sëñ Tuubaa moom sëñ bi xam nga sëñ Moodu Xari wax na ne sëñ bee ko nettali ne ko am na kenn ci tubaab yi bi mu nekkee fii koo xam ni dafay indi ay bali fital teg ko ci kanam fekk sëñ bi bind mu wax mu wax sëñ bi ne ko ah, na nga ma moytu ndax tey bali yii de moom xam naa ne moom ci laa lay faat nee sëñ bi foofu mais ma nga sëpp xalima ga waaye da ko seppi rek wiccax ko ci bal yi bali yi ba bal yëpp ruyandoo ba def ndox fi kanam mu ne ko kon mën nga lii daal mel ni ko tiit xam nga kooku moom kon moom mënoon naa mucc ci ñoom waaye Sëñ mooy koo xam ne daa bàyyee boppam ak yàlla fi mu ne sëñ Modou Khari Bousso moom mi wax nee na sëñ bi nee ko ci yoonu géej gépp benn yoon la la ñaan suñu borom muy muy julli ga ci géej waaye ci yëpp neen daa bàyyee boppam suñu borom rek lépp lu suñu borom jaarale ci moom mu xam ne loole noonu la dem nga xam ne amatul tànn ñaanut fagguwut itam xabaar yi ci yëpp itam fi ne suñu borom moo ko jaarale ci loxoom ngir maanaam të yi dal ko ci diggam ak noonu yi kon sëriñ bi buñ fii toogee faw nu fàttaliku ko faw nu teewluwaat ko xam ne jëmm ngi noonu joo xam ne day àdduna eh, day xamut ku mel noonu doon jëmm ju sell waaw doonoon jëmm ju sell joo xam ni sii di amul des mu danaa wax ne nee na boo ko gisee la ngay jëkk fàttali ko ci moom mooy taaram ba jëmm la joo xam ne bi ne ku mas a moom faw nga sopp ko ndax nee na suñ borom mboolem lu di taar da ko sotti ci jëmmam joojee léppam jag léppam taaru léppam sell ay meloom sell ay jikkoom sell moo amee woon kàddu gu gu tuuti gu kàddu gu gu gu suufe boog laa bëgg wax waaye gu neex amoon jëmm ju tuuti nga xam ne mu ne su ko misaal ci ab njoolaay waaye mu ne ko misaal ci ab gàttaay foo ko masaa jege itam xeetu gëtt gi moo la koy wax xeetu misk gi fu mu masaa tooge itam penku lay jublu fi ne Sëñ mooy koo xam ne fii ci Mayomba nee na fi laa eh, jaayanteeg suñ borom ci ci ci yooyu mu jaay yooyu mu jaay nga xam ne fanweer ak ñett la nee fii da ko defee loolu wax na ko jësaw sa kulantu maanaam fanweeri mbir ak ñett yoo xam ne lu ci na dagan na waaye da ko bàyyi ngir yàlla yoo xam ni moom saa wax ne du ma leeral lépp waaye am na ci yum jot a leeral ci xeeti lekk yu bari yoo xam ne da ko bàyyi ak xeeti naan yu bari ak lu bari lu dagan fi ne wokk rek wax na ne dawu ko def bokk jëmm ji wala dara di ko màtt mu faxas ko loolu mosu ko def moo tax fii bi mu fi nekkee nettali na xeeti eh, xeeti yi dox ci suuf yoo xam ne dañ koy sam nee na ba ba ba fees dell jëmm ji marché di ko màtt itam waaye du ci faxas dara ndax boo faxasee mën na cee rey dara te suñ boobu mooy kaani mës da rey sax aw melentaan ci kaw suuf nekkoon jëmm joo xam ni ak colam lu weex moo ci ëppoon te da ko daa ëpp itam rawatina loxoy mbubb mi nekkoon jëmm joo xam ni daa roy yónnante bi sallallahu alayhi wa sallam ci lépp wax nañ ne xam nga yónnante bi dañ koy misaal ne buy dox day mel ne kuy wàcc ci tund Sëñ Tuubaa noonu la daan doxee kenn mësta mas a ànd ak moom ci dox waxam nag wax ju neex la ni ma ko waxee waaye mësta wax ay larax fi ne ay waxam it bëriwut démb la ma Baye Abdou mii di nettali maamam sëñ sëñ bay sëñ Bousso Ilimaan nee na daana daana ko wax ne eh, sëñ bi dee waxam bariwutoon ne ko man de saa yu ma fa masaa dem boo xam naa eh, tuut tànk la di jàng nee na lam may wax mooy na nga def ak fu sa ëll boo toll nee loolu du ko weesu ak man du ko du ko weesu waaye waxam itam ay njariñ la feese ci njariñ la feese digle lu baax la ak tere lu bon ak tudd yàlla daana ama jataay ak ak ak murit yi murit bu ñëwit faw mu dénk la ne boo seetee mag ñëpp defal na leen nekkoon koo xam ni moom dafa feeñ rek seey ci suñu borom tabaraka wa la nekkoon koo xam ne misaal la ci mbooleem jikko yi ñu tànn te muy jikko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci dëddu adduna adduna moom ni mu ko woye fale nit dootu ko ci fekk moom sax waxal na boobu ne àdduna da ko doon dàq di ko dàq di ko dàq nee na ba mujj suñu borom ne ma taxawal nee na bi ma taxawee adduna ñëw wër ma ci wet yépp da ci daa nag ne képp ku bëgg a agsi fi man da ngay jéggi adduna moom loolu sëñ bi lu mat a bàyyi xel la lu am solo la mooy sëñ tubaabam addunaa ko fi ne loo yëngu ci moom rek adduna mën a la waaye adduna soosu lépp bokkut ak jëmmi Sëñ Tuubaa ja te jëmmi Sëñ Tuubaa ja moo am solo moo tax noonu la meloon ci ragal yàlla ak sàmm ak dëddu adduna ak ñimi dëkk ak farlu ak bëgg lu baax fi ne ci dundam am na yu ci xaw yoo xam ni noonu xam nga dañ ko miin murid dañoo miin daanaka mbiri Sëñ Tuubaa waaye lu yéeme la mooy sëñ bi jëmm joo xam ne ci misaal mësta am lalub tëdd nga xam ne mës nelaw guddi fi ne xiyaamu leen yi moom da ko dëkke woon ci diirub ak nekkam ba muy ca njëlbeen nga nga xam ne tey booba demagul sax li ñuy wax daara sëñ Basiru nee na ci la mas dégg soxna maam jaara di wax ne di di wax ne ko kat gaañu baax ña soxna maam jaara bés moo ko nett ne gaañu baax ña kat bokk na ci seeni melo ñoom dañuy fanaanee taxaw guddi gi di naafila ak di ak di jaamu yàlla nee keroog la tàmbali bu guddee ba ñépp tëdd mu dem ci jàkka ja taxaw fa ba ba ba fajar wala léeg mu def ko ci jullikaayub soxna maam jaara bi ba fajar jëmm joo xam ne ci misaal mësula julli ñaari waxtu yu farata ci menn njàpp fi ne tey julli gune ak njàpp mboppam daana sëñ Basiru neen daana wax ne man duma jëfandikoo ay seel du seel yi diine du seel yi aada nee na seel diine mooy maanaam jenn farata maanaam ñaari farata nga jëli ko ci mel menn jàpp jëm joo xam ni mësula julli ci digg waxtu wi wala ci mujjug waxtu fi ne tey ci njëlbeenu waxtu wi la daa julli te ak jaamu yàllam képp da nga yaakaar ne moom doy na dund fi ne ne sëñ Basiru nee na bu ma saa julli timis ba noppi ñaar rakkaa yi muy naafila baqara la ci tari ak ali imran xam nga sëñ Tuubaa mooy koo xam ne moom ku ko gën a yéeme ci kaw suuf moom yaakaar naa amul moom man sëñ Tuubaa moom sëñ bi maa xanaa ku ko xamul waaye ku ko xam ni dana faw faw nga gis ne kii moom xar baax la loolu mu wax ne xustu xayaatan laa turaa li xayri mucjizatan baanat li udni xayri mooy dund koo xam ni xar baax na ndax li ci xaj ak lim ci xajal ak lim ci def loolu daa xëju daa xawut a xaj ci dundu doomu aadama xam nga bërëb bii noonu rek sëñ bi ku fi mën a am ayu bis ci digg àll bi amoo bërëb buñ la war lool amoo lekk buñ la war lool wala naan amoo kenn ku la fi jàppale ay làmp yi ñuy wax yëpp amu fi nga mën nekk ayu bis ci digg man ni nga xam ne wóor na ne mboolem luy lore mi ci suuf xam nga loolu sëñ bi daa daa doy xar baax bokkut ak nag jaamu yàlla gii nga xam ne tey moom li mu daa def ci jaamu yàlla suñu daan mu baax ma daana wax ne bis bi bu ma saa ñëw da koy sëf ni ñuy sëfee camion nga xam ne wenn waxtu wu muy nee amut bokkut nag lim bind nag nga xam ne moo ëpp lu bind ci ci doomu aadama yi ci li ma xam man am naa mbokk moo xam ne diwaan yi suñu laat suñu mbokku taalibe la moo xam ne diwaan yi suñu laat euh, dajale woon lu ci bari bind na ko waaye wax na ma ne lam ci dajale ci bayit rek lu bokkut ak wesel yi mat na soixante soixante mille bayit jëm soixante trois mille yaakaar naa loolu nag ci kaw suuf xamuñu ko bindul toll te bokkut ak yi fi ne ci salaatu ala nabi masalan jëm ji ëpp ay si siyaxi salaatu ala nabi nga xam ne mu ëpp ay ay julli yum julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy Sëñ Tuubaa danga xool kubra bi mu xatul xim na kubra maa ngi koy laaj gars yi ñu ne ma ñu ne ma amuñu ko bàyyi man leen dee leen ko wut ndax fii moom la ko defee kubra bi ndax suxra bi moom la def ci réew ma ba mu daata ñëw kubra bi moom fii la ko tëribe ndax tudd na sax way sa loolu fii la ko fekk te kubra bi moom sëñ bi xawma lu xaw a tollook moom ci salaatu ala nabi ci mboolem téere yi salaatu ala nabi yema jiitu woon ak yi mujj nga ne ay tëggini boppam la yoo xam ne moo ko moo ko moo ko moo ko sàkk ci yanke wala suñu borom bare wa taala nga xam ne gën jaa néew sa fi ne tey sa kubra bi juróom ñaari téeméer salaatu nangam mi ngi ci bokkut ak daal nga xam ne moom juróom ngi ci ak nangam nga dem ci yeneen yi nag yi nga xam yëpp nag bis rek nangam ak dégg nga jës jaali ba toog xam ne ñetti téeméeri salaatu mi ngi ci nangam te salaatu sëñ bi bokkut ak salaatu yeneen yi ngeen xam ndax. salaatu goo xam ne daa jógee ci xolub Sëñ Tuubaa ba nga xam ne leeruk Sëñ Tuubaa ba bi mooy centralu Quran bi moo leen di tëbb mooy jox ñëpp wa bii turaqi xisbakal xufaada lépp leer ak yàlla ca ruux yonente bi ñëpp duñ jëflanteeg moom waaye lépp li li jaar ci yoon bi day jaar ci sëriñ bi mu jox ñëpp kenn ku ne nag poto làmp ba la gën a jege ca ngay ca ngay wuute Quran noonu nag noo am taw fexe dend ak central ba nga xam ne moom moom moom wajaal fuyoo da kalkal yi muniira xuluba xisbika wa astianuura léegi nag loola salaatu ya ciy bàyyi ko salaatu yu sëñ bi moom kiimaan la danga xool ci misaal rek salaatu gi nga xam ne naa ko wax lu bare bari ci nuuru daal ni bi wax ne salli salaatan tamla'u samaa wal arda yaa man qaada li namaa maa salaamin yartaqi lil arshi wa yamla'u l kursiya yaa dal farsi maasalaatu gu gu fees noonu sëñ bi xam nga loolu sëñ bi seen li salaatan tam la us sama asamaan yëpp mu fees ko dem wal ard ak suuf si yaa man xaadam maa salaamin yartaqi lil arsi wa yamlau l kursiya yaa dal farsi wa yudxilaani l bisra fi qalbi nabi sururi kulli aqrabin waaj nabi nga xam ne tey salaatu cofeel la gu fees dell da kapp kawlu bi nga xam ne boo ko waxee genn yoon si ma ne moom la nga ca mën a la nga cay amee ak la nga cay roote moom yàlla képp moo ko moo ko xam salaatu ala yi nga xam ne moom la gaa yi njëkk a def rek te ñu xamoon ko yooya yonente bi ci wax ne man salla alayhi salaatan waxidatan sallallahu alayhi biha asran julli géew julli ci yonente bi bu tamit bee genn julli suñu borom day julli ci yaw fukki yoon yow mi julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dégg am malaaka moo xam ne suñu borom da ko sàkk itam ngir mu julli ci yow fukki yoon waaye day jël julli gi dem yóbbul ko Rasulullah fa mu ne ne ko diw doomi diw moo julli ci yow julli gi yonente bi moom it julli ci yow mii mooy ñaanal la fukki fukki fukki fukki yoon ñu yéegal la fukki daraja sippil la ci bakkaar fukk ci loolu genn salatoon la bi mooy yu simple yi nag bokkut ak salat yu sëñ nga xam moom moom fa mu la jëmee moom yàlla képp moo ko xam kon sëñ Tuubaa Mbàkke da wax ne lim bind ci salaatu al nabi xawma ku ko ci fekk boo ñëwoon ci xam-xam gi fi ne téere xam-xam yi tawxiid gën jaa gis nañ ci lu mat téeméeri téere tawxiid yoo xam ne sëñ bee ko yenn yi lu mat ñaar fukk nangam wala jëm moom téere xam-xam la yenn yi xasiiday tawxiid la maanaam jëmm ju bind loolu ci tawxiid rek ba tey ba tey yombut boo ñëwoon ci fiq lim ci bind rawdu riyaaxin mool nañ min fatawa Cheikh Alxadim mooy fatawa yi nga xam ne ay laaj la mu ci tontu bu ko teg téere yi fiq yi nga xam ne tey yenn yi ay saraa la yenn yi da ko wayaab lu mel ne muxtasar Cheikh Xalil sëñ bi xam na ko téere bu toll noonu muxtasar Cheikh Xalil sëñ wax nañu way na ko risaalatun abi zaydin bi sarxu na ko bokkut ak tey tasawuf moom lim ci bind moom nga xam ne moom it kenn xamul lu mu toll bokkut ak itam maa ngi ci misaal tagg yonente bi sallallahu alayhi wa te ne boo ñëwoon ci diggam ak rasul day da nga yaakaar ne loolu képp moo doon dund sëñ bi sallallahu alayhi boo ñëwoon ci diggam ak suñu borom da yaakaar ne loolu képp mooy dund sëriñ bi xar baax yi yàlla jaarale ci loxoom it boo ko doon boo ci doon wax te li ci wér bokk jàpp naa ne war war ma mënees na ci indi lu lu xaw a jege junni junni xar yu bokkul yoo xam ne yëpp ay wér te day te day te day te te yu wér lay doon loolu nag kum jaar ci ci jëmm jum jaarit loolu ba tey yombul bokkul ak itam tey ci misaal lu mel ne ñiy bind ci yeneen domaines yi ku mel ne euh, ñi bind ci économie masalan buñ ci waxee ba noppi day mel ne sëñ bi am économiste la bokkut ak ñi ñi nga xam ne ñoo jàng mbirum socialisme social ak euh, sociologue bokk sociologie <laughs> yu demee noonu ijtimaa ilmul ijtimaa da nga jàpp ne suñu bépp ilmu ijtimaa la bukkut ak dégg nga irfaan ishaaraat yi mu ci def doon di daw ci nangoo xuus mooy tawxiidul aarifina billahi taala bukkut ak dégg nga lu mel ni tey civilisation bii mënu tabaxal xam nga boo gisee réew mii ña leen mooy nanu colonise woon xam ngeen ñii moom yàlla yàlla defal tawfeex waaye ñoom seen làkk sax ñàkk nañ ko ay tubaab la wax yoo xam ne eggul ci tubaab yu mag yette <laughs> seenu colit ñàkk nañ ko seen aada ak cosaan xam naa lu bari ñàkk nañ ko ci àndoog waa Dégóor waa waa new raw la loolu moo dara Côte moo dal ñu bare bari noonu nag ci réew ma ba léegi noo ngi wax làkk wañ amoon di sol suñ ba su yére yére yére yi Sénégalais yi di seen Sëñ Tuubaa dégg nga maanaam dëkk yenuy dëkk itam anam gi ñuy dëkkee suñu dëkk yi ni kees yi xam nga Sëñ Tuubaa moo ko njëkk a tàmbali keesu góor ñi keesu jigéen ñi ak dongo yeeg ñooy tër bi yow ak nag loolu sëñ bi aw ci wàllu dëkkin loolu Sëñ Tuubaa moo moo ko kii maanaam Sëñ Tuubaa moo nu sàmmal suñu aada ak suñu cosaan ci réew ma nu des di ay sénégalais te amunoo ci benn jafe-jafe wala complexe wala dara fi ni foo mën a dem ci àdduna bi dañuy fekk murid yi ak seen baay ba seen baay laat yi loolu lu am solo la sëñ bi amuñ ci benn complexe loolu nag sëñ Tuubaa moo moo moo na ko sàmmal wet googu rek fi ne daa doy daa doy ci sëñ Tuubaa bi ne te loolu fi ne duñ ko waxtaan lu bari dañoo xool làkk bii nii ni ñu ci jeexete làkk wolof yi fi mu ne boo demoon Mauritanie man sama dem Mauritanie dugg ci ab taxi waa ji di wax wolof yi leer naa ñi ma ne ko yow kon ndagate mu ne ma fii de moom boo déggee wolof sa day baax <laughs> maanaam foofa boo demee da jàpp ne wolof moom foofu lañ dëkk ci gànnaar boo demoon euh, dégg nga bi noonu boo demee Mali noonu loolu sax noo ci xaw a dese danañ xool itam tey ci misaal maanaam vocabulaire yi yi nga xam ne tey ci misaal worma ci nga xam ne mooy wormay murit yi fi mu ne maanaam ci fee ñu dëkk ci réew ma rek bu yëgul rek maa ngi déglu waxtaanu kilifa gu mag muy wax ci yonente bi ba tudd buñ ko doon misaal ci keneen li wax maa ngi jégalu ci baat bi lu jox jabar xam nga jabar <laughs> nun dul ko wax mukk nun soxna la ñuy wax <laughs> wala dëkkaale wala wala wala wala ànd àndandoo wala ku kum dëkkoo gis nga baat yooyu te lee ayut fi ne ñu am na ñoo xam ne ku faatu na ñoo xam ne ku dee dee dee na na <laughs> te nun te duñ ko wax sëñ bi làqu na la ñuy wax yeetal war ma jooju rek wala sëñ bi bu duggee ci biir dañoo xam na day dallu wala boog génnagut wala yu ñu demee baat yooyu nii nga xam ne moo fees dem na ba ba jeexital ci réew mi yëpp di ko wax nag mm. murid yëg ñu dul murid yi mm. loolu wet googu yaakaar naa sëñ Mamour yéen war ngeen cee def jàngat ba gis jeexit ji sëñ bi def ci ci ci ci ci làkk wi nga xam ne fi ne murid yi ku ku bon dëgg-dëgg duñu wax ne daa bon wala ab saadix la ñuy wax diw saadix la wala ci saaba la saaba la mooy ci saaba yi la bokk <laughs> di ma koy misaale eh, net li boo net li boo xam ni boo xam ni bu wér la wax na ne sëñ bi ca njëriñ dafa am lu ma sa yëngu nee na mu laaj li yëngu lu mu doon am mag mu ne ko su ma ci amee ndigal dinaa ko net sëñ bi ne am nga ci ndigal muy net li nag xew-xew boo xam ne daa xew ca ci marché ba waaye xew-xew bi da ci am solo mooy wax na ko ba jeexal te dara ci tooñ amu ci te keneen kuñ ko waxoon fii ci ci misaal mën nga cee dugal ak tooñ ndax da ko wax ne jaa jaa yàlla la mooy jaamu yàlla la bu xeeboon wërsëgam ba tax ko àgg ci wërsëgu jàmbur doon ca sàkku ndor leen te amu ca ndigal borom wërsëgoo fekk ko fa ñu ànd jiit leen di yokk seen i jéego nee na tuut tànk yoon ci penc ma nag di leen yokkale jéego jéego mu mu mel ne que la la ñu dab ba di ko ay bant xam nga loolu moo jur yëngu bi xam nga loolu jaamu yàlla bu jaamu yàlla bu xeeb wërsëgam ba tax ko àgg ci wërsëgu jàmbur di ca sàkku ndolleen te amu ca xam nga loolu loolu leer na moom nee na borom wërsëgu fekk ko xam nga loolu ba tey moom it waaw ah, nee na maanaam ñu ànd jiit leen di yokk seen i jéego tànk yoon ci penc ma nag di leen ko yokkale nee <laughs> na mel ne que jiitu moom lañu ñu dab ba di ko tegu ay baax ah ji maanaam mag ñoo ñuy njëkkoon moom sëñ bi nga xam ne xamuñu woon lu bon xam nga jëmm yooyu sëñ bi maanaam ba tey sëñ Tuubaa mën nga ko xamee ci ñi mu tërbiya ay junni junni nit ñoo xam ne daleen defar yóbbu leen ci ñoom baxtanuk sell ak mbaax nga xam ne àggoon nañ ci dara lu bon daw toq seen xel. dañ xool Cheikh Abdou mu baax mi nga xam ne daa koy nat li nga xam ne lu wér la. kuñ ko indil dégg nga maanaam di ko loo xale bi mu laaj kuy bàyyam xam naa waaja day ku xaw a kii ne quoi moom amul bàyyi yaayam da ko kii rek mu ne lay loolu de ca soxna Mariama mu njëkk ma ca la njëkkoon amee nga xam ne moom xelam demut ci leneen lu may moom la gusul mbooloo <laughs> bi fi ne dina am loo xam ne man dinaa koy natt lu wér la mooy kenn ci mag ñee te eh, yaakaar naa jëru média sax ci tur yi. Mm-hmm. ndax net li xaw a kii mooy kenn ñaari ñaar ñaan ñëpp ci Sëñ Tuubaa lañ nekkoon yaroon ko moom mu yar leen kenn ki dafa bëgg soxna doon ko doxloo kenn meneen mag mi mag moomee nag ba mu demee far gis ni soxna si baax na ci moom mu fasal ko boppam <laughs> léegi nag euh, ka ko yónni woon ba mu ko déggee ne ko yow xamu woon ne loolu kay aajo ko daal ne ko lekk li ñu ko doon waajale fii mooy mooy mooy xéewal yeeg yooyu nañ ko yóbbu sa kër ñu defe ko foofu <laughs> man dañuy wax isaar wa yusiruuna ala anfusihim walaw kaana bihim xasaasa la maanaam mag ñoo ñi mu defar loolu daa doy daa doy ab dund xaw ma li may wax seetlu ngeen ko déet maanaam maanaam abaar yi dimension yu wuute yi nga xam ne daa daje Sëñ Tuubaa nga xam ne lenn lu ci ne doy na fi ne ak dund diggam ak tubaab yi rek boo ci doon wax fi ne day doy sëkk Sëñ Maam Mor mu baax mi nga xam ne barki dem man sariya ak ak fiq yëpp du sama kii man daal Sëñ Tuubaa laa xam ak yoon yoon yoon <laughs> lu am solo nga xam ne moom ci la spécialisé ci yoonu géej gi ak diggam ak tubaab yi yooyu te mu doy sëkk na nga xam ne moom da lay wax ba léegi ci lay wax am ñoo xam ne bi ñu dalee wax ba léegi ci fiq la ñuy wax ak sëñ bi ak sariya maanaam maanaam yaatu googu nekk ci biir sëñ Tuubaa fi ne ni mu fonke rek am réewam xam nga tubaab yi biñ ko delloo biñ ko jëlee fii yóbbu ko Sénégal te ginnaaw bi ya fa jox ya fa dox dox fa bañ bëgg ko génnewaat xam nga boobu wax nañ ko ne dañ laa bëgg yóbbu Madagascar yàlla dogal baabul Cheikh Sidiye moo ci doon ndox ci diggante bi bëggoon ñu yóbbu ko euh, maanaam Mauritanie waaye baabul Cheikh Sidiye ba muy wax ak sëñ bi di ko wax ne tubaab bi de lañ bëgg mooy yóbbu la Madagascar te man dama bëgg ñu indi la fii ci mu gànnaar ndax gànnaar lu dara say mbokki jullit lañ sëñ bi dana ko réew yooyu yëpp ñoo yem ci ñoo yem ci man man daal bu ma mënee nekk fii fii fii fii sama réew mii mooy la ma gënal bu ma ko mënta am nag fu ñu ma yóbbu ñoo xam baax na nga xam ne jëmmi réew ma ni mu ko fa gis nga bi mu ñibbi wax ne ijaam ruju wax ila qawmi saadatana wal takfina yawma jamil xalqi niiraana nga xam ne réew mépp la la ñaanal moo tax may wax loo xam ne xam naa wax naa ko ba mu sàpp jot na Sénégal le Sénégal mi ñu gën a jàpp Sëñ Tuubaa bañ ko def rek yëfi ay murit ñeneen xam ne jëmmi réew maa ko bokk buñ ko jàppee te fullaal ko si ne maanaam réew ma dana dem fu kenn fu kenn mënta xiyaas waaye li feeg ñu ngi koy boole ci kenn ci kër yi rek maanaam jàppe ko yëfe yi ñenn nit rek maanaam lu bari dana leen réer te lii may wax ni du waxi mburi te du waxi kii maa am na réew yoo xam ne am ay jëmm yoo xam ne leen boole ci ndonal réew ma boole leen ci nga xam ne tey réew mépp dañ leen fank dañ leen fonk ñi ànd ak moom ak ñi bokk ak moom ak ñi bokkut ak moom loolu gis nañ ko loolu nag foofee lañu war a lañu lañ war a dem si sëñ euh, maam Bou Kounta Ndiassane mu baax ma dégg naa daana wax ne euh, Sénégal dañuy dégg gëm gis weddi <laughs> loolu lu am la waaye jëmm jéeno am moom xam nga ci misaal rek ma jox la benn misaal mooy tariqa tariqa ci kaw suuf ba mu dalee am ba léegi ñi ko mas a am dëgg dëgg tariqa ëpp ñu juróom juróom daanaka fi ne li ngay dégg ñu tudd tariqa lu ci bari ab faraw la ab banqaas la ci biir tariqa tarixa ñi ko suñu boroom jox ñu néew la ci kaw suuf fii ci Afrique moom mosuñoo dégg ko fa am moom Cheikh Abdou Khadir Jilaani moo ko fi amoon ak Abul Xasan Saadali xanaa moom sax moom xëy na man nga ne Maroc Maroc la la la dëkk ak Maroc ak euh, ku mel ne Cheikh Ahmadou Tidiane waaw kon de Afrique kon xëy na sax ma ne ni moom sax moo tax gaa yu baax yi daa wax ne Afrique moom fa la awliya ya dëkk euh, garbu Afriqiya ak Cheikh Ahmad Tidiane ak Cheikh Ahmad Rafaay xanaa yi ci des nag yëpp boo ko toppee ab bànqaas doon ci biir ci biir tarixa Sëñ Tuubaa yàlla jox ko tarixa boo xam ne daa wuuteeg nag sax tarixa yu njëkk ya ndax moom dajale mboolem da nekk ci tarixa ya yu njëkk ya bu ñu doon ay ay ay dex wala ay ay ay ay ay ay ay ay ay géej maanaam fa ñuy sotti ñoom ñëpp nga xam ne moo dajalee tarixa yëpp loolu mooy ak murit mooy moom la doon tudde mënal ma jaamee moom loolu tuddee munal majaami waaw fa jamaal kulla wa zaada wartaqa loolu la sëñ sëñ Basiru ne tariqa jaamia la dafa dajale lépp tariqa yëpp dañ cee ne awraad yëpp nekk ci azkar yëpp nekk ci lépp daje fi moom loolu nag nu am ko am ko am ci biir réew ma loolu sëñ bi du lu yomb de du lu yomb du lu woyof lu yomb du lu woyof kon wolof eh, yi ak ak alpulaar yi ak séeréer seeg waa réew ma daal jot nañu gën a fonk Sëñ Tuubaa xam ne jëmm la joo xam ne yàlla na ko te du jëmm ji yomb gis ne Sëñ ba Jaxate ci moom muy laaj suñu borom waaw kii foo ko jëlee kii yàlla moo na ko jox kii yàlla moo na ko indil kii yàlla moo na ko eh, ma andil eh, yàlla kii foo ko jëlee <laughs> yàlla kii foo du jëmm jëmm la joo xam maanaam maanaam humanité a xam jëmm ju mel noonu ak li daje fi moom fi ne boo xalee xeeti nattu yi ko dal sax fi ne xar baax la ci ndax mbooleem xar baax yi gaa yu nattu yi gaa yu njëkk yëpp lañ ko dajaleel mu dal ci kaw mbooleem lim daj fii ak ak gànnaar ak kii da gis ne gaa njëkk ñi kenn ku ne sab nattu daanaka dugg na ci biirum nattoom yan ba ñu yanoon xutbu ya ak labdaan ya te attanuñ ko moo ko fob raw gaañ dëngañ di wéy te tëwatul balaaya foofu nag la yéeme moom nga xam ne moom du tawat du tawat du jàmbat du du du du du du du sikk xamul sax nag sikk ba bay sikkal dara lu waaye defee mu mu mu firee ko firi mu rafet kon xol yërmaane boobu laa ne woon naa yu walla danga xol fi ne bi bi bi ñu koy génnewaat di ko yóbbu Mauritanie keroog bi soldat si ñëw loolu moom xew xew bu réeréy moom boo xam ne daanaka mën nañ ne soldat yi amoon sipp ñoom tubaab yi lañu dajale ñu wuti woon dégg nga euh, Daarul Manaan nga xam ne xeex lañ doon waajal ñoom waaye sëñ bi keroog bi soldat si ñëw ci la taalif xasida dégg nga rahmaanu rahim rabbi bi maa yasrahul adhaana ci biir xasida gi mu wax ne yaa yaa yaa maalikal mulki yaa man jalla an qawadin irham jamii al yaa haadi yéen la daal maanaam ñaan suñu borom mu mu jéggal ak mu yërëm mbindeef yëpp ba ci tubaab yi nga xam ne ñoo ñëw del si ci kaw xam nga ko muy xam ne moom borom yow ëppante di fayonte tax na nga yërëm mbindeef yëpp tubaab yi nga xam ne ñooy ñëw di di dasi ci kaw suñ bàyyi daal dem bi kat dama xam ndax dugg naa jam déet waaye dañ doon daal tàmbalil maa ngi jégalu bu baax wasalaamaaleykum waaw maanaam ci semaine bi ñu génn wala ñaar semaine ñu génn labbi nga xam ne mooy archevêque de muy laa nga xam ni moom moo yendu fii ak ñun ci barab bii maanaam ba mu ñëwee tuuba ñu ñëw toog ci résidence sëñ Touba bi sëñ Mountakha ci biir nga xam ne te fii barab bii ñu ne te labbe bi yendu fi ak ñun ñun ñoo tax ñu ñeme fee yendu ñoom église bee bañ fi géejee daaw lañ ci mujj a dugg ñoom te la dox seen diggante ak ba ma ba mënatuñ cee tàbb bi ba bu fi murid ñëwee ñu man ñu mën cee ànd ak ñoom tàbb ci loolu lu yéeme yaa ko ci gënal maalik yi daldi ne ko keroog bi ma borom saam làqoo sëñ Mbàkke bu sa taxaw dane sëñ bi da dane dane sëñ Mbàkke Buso neel mbooloo ma boo ko boo ko boo ko jullee ba noppi wax leen ne leen keroog ba dencee rasulullahi sallallahu ca Medina ba léegi dencaatunu ku mel ni moom ku dul borom saam nee na mu dolli ma ci waaw wax ji dëggu gi mu dëggu li nga xamee ne man mii maa jiite commission culture communication sëti borom Sam dama doon faral di dem ci mag ñi di leen laaj ndax damay bëgg xissa bu ne ma topp ko ba ba ca cëslaay la lii nga wax nii dama ko daa dégg waaye bi ma demee ba di ko gëstu ki ma ko nettali mag ma ko ko nettali moo fekk jataay ba loolu lu ko gën a wér amul mm-hmm. nee na bi borom saam làqoo bañ ñëw wax ko sëriñ bi ndax sëriñ bi daa amatoon ci moom sago borom saam tamit bëgg ko lool xar baax foofu rek la yem mag joo xam ne nii moo la jàngal lii di ilmul xaroot ci niñ mën a waaye ci araab moo ko jàngal wëlbati ko jox ko sa bopp xar baax bu Sëriñ Tuubaa rek lañ ko mos a gis nee bi mu génnee àdduna bañ ñu wax ko sëriñ bi dafa jóg ngir bëgg a dem bi mu doxee ay jéego mu ñu fàttali ko ko yow kat yaa ngi ci résidence surveillée mu am ca naqar lool dëpp woo sëñ Mbàkke Buso ne ko damaa bëgg nga dem taxawul ma ko te boo demee lii ngay wax ne leen maa la ko wax bañ dencee yonente bi sallallahu alayhi wasallam ba léegi dencee jut ci biir suuf ku gën boroom saam am na wax ju ñuy faral di nett loo xam ne borom saam ca la ko waxe woon lawla al quraan wal xadiisu wa manaafiu xibaari maa sirtu fi dunya laylatan waahida boroom saam mi làqu làqoom gii de tax na bëggatuma des àdduna waaye ñett yi rek ma fi bàyyi sàmm alxuraan sàmm aldis ak njariñu jaam kon xam nga sëriñ tubaab mbiram dafa amul hasard bu leen jàpp ne ñun dañuy jekki-jekki daje nii rek man mii mësumaa xalaat ne danaa ñëw maa ngi te yoo xam ne tënk na ma ba da sam tànk xat na lool waaye la lay yëkkati doo ko xam sëriñ Touba mooy programme moo tax loolu ku ko xam dangay ngay noppal ndax yoonam bi lépp da ko programme li fi dajale tey bi ñuy teg xeer bi boroom saam teew fi Cheikh Ibra Faati teew fi maam Cheikh Rafal teew fi maam Jaara ak sëñ Bousso bi teew fi ak ñeneen ñuñ mënta wax loolu loolu bu leen jàpp ne hasard la waxtaanu murid nag ndax maanaam maa ngi doon wax naan sëñ bi waxtaan bi trois heures de temps ndax dafa man damay yëg-yëg-yëg yoo xam ne nii boo demee ba koy wax sax da ngay fàtte yeneen yi muy tawfeex ju rëy